maa ngi maa ngi joué rôle lu Baye Ndiaye moo nekk père de famille bare na lool li mu apporté ndax tax na ma xam lan moo la théâtre radiophonique tax na ma xam aussi tamit may mbokki artistes yi xamante ne nii tey jii damay doon dégg seen liggéey tax na ma xam seen liggéey seen compétence liggéey ndax ka nekk bëgg naa liggéey ñoom tax na aussi tamit ma xam fan mooy Africa Check tax na aussi tamit ma xam lan mooy carte gab tax na ma xam aussi tamit lan moo la xaalis waaw am na ba mu si gën a marqué mooy baay Ndiaye ak Ndoye mooy bi mu ko fekkee géej la waxaa moom te mu di ko wax ne mbéyam géej daxaa faj korona boobu moom ma si gën a marqué boobu moom marqué na ma ndax waaw ndax dama nekk lébu ma xam lii si mbéyam géej ndax ba uh, Apollo sa inal demal sangu ji géej dama ñëw Africa Check mu wërsëg wi gën a yokk te li tax mu gën maa neex man en tant que personne mooy dama nekkoon si aar bi la yëngatu la nekk ma dégg ko la nekk dégg na ma du passé sax kel maanaam du passé kel baa ko dégg mooy daxaa liggéey ba dee mais du aar bi du si mas a tekki kon dama sant yàlla bu baax la ñaanal Africa Check la ñaanal ñi xam ne ñoo ànd ak Africa Check